ci euh, xibaar bi nga xamante ne nii yegsi na léegi euh, ñeel euh, Ndiaga Ndour mi nga xamante ni di moom jàpp nañu ko jamono ji mu nga ca gendarmerie bu nu sukkandikoo ci i rajo mi joxe xibaar bi nee na Ndiaga mi nga xamante ne nii moom mooy frère Youssou jigéen Ndour nekk sax nag directeur télévision bu groupe Futur Média jamono ji moo ngi ci loxo gendarmerie yi fële ca section de recherche gannaaw ba nga xamante ne nii moom Ndiaga Ndour déglu woon nañ ko ci coow li nga xam ne moo nekk diggante digganteem ak euh, ki nga xam ne moom mooy euh, directeur bu 2STV euh, moom El Hadj Ndiaye mi nga xam ne moo doon tuumaal waa TFM surtout nag ki nga xamante ni mooy directeur de programme bi di Ndiaga Ndour ne dañ doon pirater li nga xamante ni moo di fréquence am li ni mel moo taxoon mu daal di porter plainte ne nag amul kenn ku ma mën a ñaan njekk ba ma reculer ci dafa mel ne mbir yooyu nak moo mujjee dugal ki nga xamante ni moo di Ndiaga Ndour ci prison bi jamono ji ñuy wax ak yéen téye nañ ko en garde bi la ñu génn ci la njëkkoon a dem fi nga xamante ni moo di déglu ko daat koy bàyyi mu delluwaat moom ak frère am bii di Bouba Ndour waaye nag directeur programme mu télévision Futur Média bii di Ndiaga Ndour jamono ji moom téye nañ ko ci euh, loxo. Euh, section de recherche léegi nag fi mu toll nii lii ñëpp di xalaat mooy lan moo tax daal yëf yi daa di euh, demee nii moom Ndiaga Ndour moom kese ñu téye ko li tamit euh, question la boo xamante ni ñu bëri ñu koy posé question en tout cas le 21 juin dernier ba la ñu génn euh, El Hadj moom defoon na benn sorti ci occasion waale ci anniversaire lancement télévision bii di 2STV war a jëm ci beneen phase meroon na moom El Hadj bu ba lool ci sàcc yi nga xamante ne nii jàpp na ne waa TFM ci boppam ñoo koy sàkki seen signal yi ba tax na daal ay piratage la ko jàppee yëfi banditisme boo xamante ne nii nag mu daal ci euh, sukkandiku dem porter plante contre X ba tey jii nag euh, ñu daal di jàpp ki nga xamante ni moo di Ndiaga Ndour Ndiaga Ndour nag fi mu toll nii euh, ci li ñu jàpp bu ñu sukkandiku ci média mu ngi xamle ne jamono ji moom mu ngi ñoo ngi ko téye en ci coow li nga xamante ni moo jëm ci piratage yu fréquence su 2S TV fi mu toll nii nag moom El Hadj Ndiaye jàpp na ne depuis 2018 ñoo ngi piraté li nga xamante ne moo di chaîne bi ba sax dafa demoon bay perte qualité image ba ay direct yu bari yoo xam ne waroon na koo def sax da koo mujj ñàkk ndax rek qualité image bi nga xamante ni nii soxla woon na ko te dañ koy pirater luy moo taxoon mu daat koy ñàkk fi mu toll nii nag information bi mu ngi lëmbee réseaux sociaux yi Ndiaga Ndour mi nga xamante nii frère la ci Bouba Ndour ak Youssou jigéen Ndour nekk sax directeur programme euh, TFM mu nga ca euh, loxoy euh, section de recherche en garde à vue lépp nag li ko sabab moo di euh, piratage yi nga xamante ne ni Hadj Ndiaye jiñ na ko waa TFM ne ñoom ñooy piraté li nga xamante ne di moom moo di chaîne am bi image yu chaîne bi di 2STV El Hadj Ndiaye nag mu ngi doon xamle ci déclaration ba mu mujjee def di xamle ne dina jël revanche am nag ci conseil d' administration groupe Futur Média bi surtout nag ci ki nga xamante ni moo ne ca boobu moo di Youssou Ndour ndax dina ko xamal ni du sa morom te dinaa la wan nag. nag du ma sa moroom ci lépp nag moom nag El Hadj euh, daal taxawaayam bi moo tax ñu daal di jàpp jamono ji Ndiaga Ndour moo nga ca loxoy section de recherche lii di xibaar boo xamante ne ni wàcc na léegi mbokk yi mën ngeen continuer di abonné bàyyi xel seen chaîne YouTube bi